mangook euh, mbokk yi ginnaaw bi ñu sante borom bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen wax ni leen euh, dellu seet nañ ci émission bi nga xam ne moo di gindi gindi nag dafay ànd ak yéen ci li nga xam ne mooy euh, xew-xew yi jamono jeeg lépp loo xam ne dafa am ki ñu ànd di sëriñ Abdoul Aziz te ñu dalal ko mën ak Baye Assane Mesre dañuy waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum xam-xam mm-hmm. waaye du tee nag jamono ji ñoom ñu dëppook moom jamono ji ci jamonoy campagne la ñu nekk mm-hmm. ñi nga xam ne ñooy ay candidat ni ci réew mi soxla réew mi ci diggante xew-xew yooyu di am di laalante beeg euh, xeexoo bi boo seetloo ñoom ñii euh, di sëriñ Abdoul Aziz Diaw mën nañ cee indi ay saafara yu baree bari ndax dafa am loo xam ni yàlla mën na koo may kii wuti ji mbooloo ak pakk-pakk yi muy dajeel ak yu ni mel mm-hmm. xeexoo beek tuurante beeg deret yu ci bari dinañ ci ñëw bu àndee ak dogalu borom bi naka noonu ñu ñëw ci li ko yàlla jagleel may ko ko te mu jàngi ko loolu dinañ ci ñëw mm-hmm. bàyyi Assane Mesere jërëjëf soxna bu ñoo di nuyu Mourou Diouf mi nekk ci xarale gi waaye di nuy bu baax sëriñ Abdou Aziz Diaw mi ñu war a seqal waxtaan wi. Mm. di nuyu sëriñ Abdoulahi yi moom sëriñ Jim Ndiaye di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. waaye di soññaat gouvernement bi rek rawatina El Malick yoon bi nga xamante ni moo jëm Kaymoor bu wàccee tëli bi. Mm-hmm. yoon boobu nañu si ko ñuulal defar ko si ni mu gën a gaawee ndax it foofu la kilifa yi aw te it dëkk bi li mu boot si aw askan. Mm-hmm. bëri nañ lool te askan wi amuñu fudut foofa. kon ñu ngi siy bàyyiloo xel gouvernement bi. Mm-hmm. di nuy it ko ñu wax Abbas Fall. di borom Ndakaaru. macha allah bëgg naa nga ñaanal ko kooka. sama xarit la. wala boog sunub xarit la teyit sunub xarit sab xarit la bëgg nañ nga defal ko ay dog nga ñaanal ko ba ndakaaru gii nga xamante ni moom la bëgg a li ko li ko Sonko wóolu ba jiital ko fi incha allah euh, mu jël raw gàddu gi jël sept député yépp def si poosam incha allah yóbbu ko ensemble ko ñaanalee mu ñëw de waaw ñaanal ko ko loolu lañ bëgg nga ñaanal ko Abbas moo tax tey jii ma indi ko borom ndakaaru ah, jox ko guy gi di ko hmm. ko jàppale moom mooy borom ndakaaru mënoon mënoon nga koo def dara ma mën see sol de waaw man ah, bi de boo ko defoon dara mu sol ko. Ah. <laughs> Ah, kon moom bi daal wuyu si na de moom. sëñ bi mooy wuyu si sëñ bi lu ma bëgg mu bëgg. sëñ bi du ko doon Dakar rek. na incha allah mu jël Dakar. Eh, hmm. kon mi ngi noonu sëriñ Abdoul Aziz Diaw ñu bàyyi la nga nuyoo biir ak biti réew. alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Euh, di la nuyu bu baax sëriñ Soxna bu Diop di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal yàlla defal la tawfiq ak taysiir noonu la ñuy nuyu bu baax Alaaji Asan Mesere di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal yàlla yokkute ak mhm. mhm. képp koo xam ne yaa si récib moo xam Modou Diop wala topp wala képp koo xam ne liggéey solution moo la tax a jóg ñu lay ñaanal yàlla yokk la ndam ak tawfiq loolu la ñu nuyoo baax nag suñ kilifa diine yi suñ nuyoo si ñoom ñu ngi koy jox si loxo si Abdoulaye bu sëriñ Jim mu jotali ñu ko si bépp xalifa sénéro si biir réew mi ak njabootam di nuyu bu baax nag ki yàlla teg si bopp réew mi muy alaaji Basiir Jumaay Jaaxaar Fay ah, di ko ndokkeel bu baax si umra bi mu jugee di ko ñaanal yàlla nangul ko umraam defal ko tawfiq ak siir di nuyu nag bu baax ki yàlla jiital si xoli sénégalais yi muy yaakaaru Sénégal ak Afrique alaaji Ousmane Sonko premier ministre di ko ñaanal yàlla defal ko tawfiq ak taysiir dëgg dëgg euh, di nuyu nag képp koo xam ne liggéeyu Sénégal moo la tax a jóg moo xam si bépp parti boo jàpp si réew mi rek bëgg Sénégal jëm kanam mm. ñu ngi lay ñaanal yàlla defal la tawfiq su loolee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillah amin waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu mm-hmm. ci kanam tuuti insha allah bu àndek dogal borom bi dinañ ñëw ci liñ bëgg a waxtaanee mm-hmm. muy ak falte dinañ ci waxtaan falte mm-hmm. mbirum fal Mm-hmm. cëpp-cëpp ji muy def ak yooyu ndax am na loo xam ni bokk na ci cërub golo daanaa dégg ñu ni am na ci lu muy dox moom nag jëmmi golo lañ bëgg a teg ci taabal ci mm-hmm. waxtaane ko mm-hmm. bu ci xajee ñu waxtaane rek li nga xam ne mooy kattan ak yi ngi ndax sëñ dañu woon comme campagne bi émission bi jër woon muy guddi ndax suñu ni sénégalais yi ñu ngi focus nan la ñuy def ba mën a kii bi waaye tamit comme li eh, ab rendez-vous la faaw ñu ànd ceeg sénégalais mais tey damaa bëggoon Assane ñu dëpp kon affaire bi tey duñ ko juutal mais dañ koy dëpp am na solo waaw bu kenn juutal fi ñuy wax dama bëggoon ñu dugg ci élection yi. Mhm. Mm-hmm. laaj ko ci xalaatam. Mhm. bala ñoo ñëw ci li nga xam ne mooy waxtaanu. Mhm. Euh, xam-xam bi ni mu gisee élection yi euh, pëccoxoo gi ci am mm. xeexoo yeeg daal yow duggal. Mm. waaw mi ngi noonu Serigne Abdou Aziz Diaw. élection yi nga xamante ni moom la ñu dëgmal. Mm-hmm. ak tête de liste yi. Mm-hmm. nga gis Ousmane Sonko dem si régions yi di mm-hmm. campagne foofa. Abbas nekk ndakaar kii di buggaan te it ñaan nga ko doon ñaanal nangu na. bàyyi nañ ko moom ma nga tàmbalee foofa. parce doon na ñaan. waaw tabaarakallah ab ko jëlee kurus. nga ko waaw. ñaanal ko ñu bakk. mu ne ma incha allah dañ koy bàyyi. moom ma nga tàmbalee foofa di campagne di ñëw. xeex it mi ngi am. jërëjëf. Assane di la nuyu bu baax. di ñaanal Bassirou Diomaye Diakhar Faye yàlla defal ko tawfiix si la ñuy wax Sénégal yàlla ngi leen door a tànnal liñ métitoo mm-hmm. ñu ngi door a am seen sens mm-hmm. Ousmane Sonko ba muy nekk si finna yi mm-hmm. ñu jàpp ko mosuñoo toog dégg Macky Sall tudd turam ba di ko ñaanal yàlla Bassirou Diomaye Faye lañ gis mu nekk président ñu jàpp opposant mu ne fii ma taxaw maa ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko kon keroog ni ma kontaan ilaa man atallah bi xalbin salim yàlla dafa tànnal Sénégal koo xam ne xolam mucc na moo tax keroog ba mu ko gisee muy yor kaaba gi xam nga kaaba gi léegoo léegi nit dana fa dugg mu sant yàlla kontaan bu yàkkamti pour nga wër ko waaye nit dana dugg sa kaaba ga kaaba gi moolu la abra pour toj kaaba kaaba gi da ko doon moolu bari na Sénégal président jóge fi dem di wëri kaaba kaaba gi di ko moolu waaye nag ba mu ba Bassirou Diomaye Faye xam ne na recevoir la nitu yàlla recevoir na koo xam ne mu a ray bakkan recevoir na ku mës a tuur deret recevoir na ku bëgg askanam maanaam ba kaaba gi boo nekkee rey ko nit boo koy wër da lay móolu waaw léegoo léegi nga ne labbayk mu ne laa labbayk wala saxadayk mm-hmm. day am waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin ba Bassirou Diomaye Faye Sénégal yàlla dañoo dimbale muy benn moom rek laa mas a gis mu nekk président boo xam ne kii sa opposant la ñu tëj la nga ñaanal ko yàlla génne ko si xat-xat yi mm-hmm. Macky Sall mosu koo def kon gën na Macky Sall si jikko te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu leen tànn borom njiit tànn leen borom jikko ji rafet kon jukkoy makaarimul axlaaq am kenn dootu ko laam-laamee mm-hmm. ñaareel bi tamit muy alaaji Ousmane Sonko sénégalais yi ñoo xam fu ñu jëm njaam gi mu nekkoon ñi yàkkamte suñ buum ak njaam dagg yàllaa ngi door a dagg buum ak njaam ak sénégalais te bés bis penc dootu nekkati jaam si kaw noonu tubaab yi sénégalais yi liñ gàttandoo Ousmane Sonko dañoo fay naar bi xoromam rek ndax seen fitna ak seeni gàllankoor yooyu yëpp moo da koo jëloon tey la ba kanam pour Sénégal ba ko yàlla génnee si gàllankoor mi ne Sénégalais koy delloo njëkkal moo tax léegoo-léeg ñu ne ñoora ñoo jël maire mobilisation waaye kenn jël mais sénégalais ñoo jël maire mobilisation ndax Ousmane Sonko le sénégalais yi xamul lan lañ ko war a mën a fayee moo tax lépp lu mu oos jaami rek danañ ko suy moo tax Assane opposition dootu amati Sénégal lim rëddal sénégalais bi ñu ci tegu opposition dootu si amati xam nga Macky Sall def na woon tas na parti Pastef waaye wallahi tallaay APR gi mooy tas ndax képp koo xamante ne ay maire la maire Saloum yëpp bàyyi nañ APR ba basé wu si ginnaaw Ousmane Sonko. ah ma yaakaar ñoo bàyyi. amul benn weneen Saloum yëpp bàyyi nañ. moo tax ñoo ñoo ñoo ñoo rek nga gis ñi nga xamante ni ñooro gi nga xamante ne gis nga population eh, bi gën a bëri ay waa mairie Kaymoor gi ma dëkk mairie tund Kabakota mairie tund yëpp war nañ ginnaaw Macky Sall moo tax lim doon oo nit ñi du dëkk si kanam tuuti opposition dootoo ko gis Pastef rek ngay gis ak Diomaye Faye ñu doxal Sénégal moo tax élection yi bu jàllee wallaay si lay doon xam ne sénégalais ni ñu bëggee Ousmane Sonko day gën a gën kanam waaye du gën a arrière moo tax sëñ bi man de ba campagne bi commencé ba léegi son bi hmm. mosuma gis moo xam Barthélémy wala wala wala Amadou Ba ñu wan leen benn mobilisation boo xam ne génn nañ Sénégal wala génn nañ dakaar pour wane ko man gis ma ko te Ousmane Sonko fu mu jëm rek gars yi dañ naan fii la damaa gis mu romb jógee Koungheul bëgg romb Malem Odar gars yi ne ko dëgg Ousmane du fi du fi jaar doo romb Malem Odar mukk tojoo ja jaddoo saafoonte ak ñun ba mu ñëwee ba kaw ko Sokone waa Kaarang jooy na ko mënul nekk nga ñëw ba sookoon wan ginnaaw kaarang Ousmane Sonko ah, si nga sëñ bi lii son moo tax mbiru yàlla kenn xamul lii la la ne woon naa Ousmane Sonko ni ko nit ñi bëggee di ko toppee noonu la ko yàlla tàggatale jinne yi noonu lañ ko bëggee yàlla nee naa la buy fal day yuuxu si asamaan su njëkk si ne la yéen malaaka yi seedal tànn naa du sàngam na ma ko tànnale na ko nit ñi bëgg ne ko jinne yi bëgg moo tax Ousmane Sonko lu ko topp mënoo gëm ne lii ay nit kese moo ko topp ndax koo xam ne yaa ngi koy topp di daw guddi ak bëccëg du la jox xaalis chaque jour da lay rëddal aw yoon te bu la rëddee nga tegu si yoon boobu nga xam ne lii mbiru yàlla dañ koy ñaanal yàlla defal ko taw fii ak taysiir mm-hmm. lim lebal sénégalais yi rek loolu lañ ko fay soy kii nga ma wax de opposition bi nee na sénégalais yi ban nañ ko askan wi génn nañ ci moom waa bett xam nga euh, ba ko yàlla bëggee alak mm-hmm. léegoo léegi day ñaan musiba mu foog ne boppam euh, musiba lay ñaan fekk boppam lay ñaan yàlla alak ko ku yàlla mayoon li jaaba la opposition bi loolu lay leen dal. heure buñ ne bàyyi nañ Ousmane noonu la ñoom la ñuy bàyyi. bu yuuxoon ne président amul fekk nañu bàyyi na leen bu yàgg moo tax élection yi sooy bu hmm. ragal naa ne cent 150 députés pour tuuti na pour Pastef. tuuti yàlla xam na ko. ragal naa ko baax amul benn werante ndax opposition mu amul si dañuy soobu rek ñoom ñëpp dañuy yuuxu pour Ousmane Sonko gis leen mën leen recevoir waaye amul kenn koo xam ne dëggal nga sa bopp pour askanu uysal amul mhm. dañuy naxante rek na yàlla defal leen tawfiq te yàlla may leen xolob muñ moo tax sénégalais yi 2017 ba 2024 musiba yu ñu doon dund yàlla dana ko obligé mu wëlbati Ousmane Sonko lu mu rëddal jaam yi bu dee tegu nañ ci fii ba sax tuuti na pour Sonko nekk président yàlla xam na ko lu si mënta xew ak lu ëllëg lu mën a xew rek njabootam lay doon ndax li mu rëddal sénégalais yi buñ ci tegoo rek seen njëriñ ak seen yokkute ak seen avancement koo xam ne ootuwul dara pour poosam dalee oo nit ñi ne leen soxluma benn palte wala soxluma benn teranga boo xam ne jógee na si pour jëm si man soxna bu campagne bi bu doon Macky Sall moo aye billaahi sénégalais yi ndool waaye koo xam soxluwut otoy président soxluwut garde corps président kii ku maandu maandu amul si réew mi mhm. moo tax yal na yàlla defal Sonko ndam ak ñëpp ñu ko topp salaamaaleykum wa rahmatullah lu am solo la sénégalais yi daal sëñ bi dañoo génnee si buum ak njaam jëm si buum ak gore te kenn mënul leen a goreel lu dul ñu jël assemblée bi jox ko Ousmane Sonko Sénégal jëm kanam. asalaamaaleykum wa rahmatullah lu am solo la. Ah, macha allah am na solo kon tab bi am na solo. waaw mhm. ah, am na solo lool kon mi ngi noonu ñu daal di koy def rek ci dal ak ci jàmm ak salaam. jërëjëf seet soreegul. incha allah euh, tey jii la premier le premier gi kon jàpp nañ ni fukki fan ak juróom benn moo de suñu digganteeg wateya mhm. ñu àndandoo rek campagne ko ci jàmm boo watee ku nekk. dem jox sa ka nga koy jox te dellu ci kër ga toog déglu bàcc yi. du noonu ca ngoon nag ñay sibile sibile ñay jóg faxasu ñu jóg faxasu waat alhamdulilah ak palte xam naa du sore liñ doon wax daa am ku mu bëgg a fal wala da nga koy falloo wala lan la mm-hmm. waaw ak palte sëriñ Abdou mooy am na ku ma koy falloo waaw c'est que c'est que ah. euh, euh, xam-xam la boo xam ne ku ko jëfandikoo rek yàlla defal la tawfiix mm. sooy xool mm-hmm. jaal xaq màkka ku bëri woon lu bari woon ay xërëm lañ waaw waaye keroog ba dëgg ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wa dafa yëkkati Seydina Ousmane Seydina Aliou mu jàkkaarloo wa zaaq këram bu mu dóor a nga moo jógee si réew mi dëgg dafa ñëw di Basiir ak Ousmane képp ku ànd si boom ak dëgg ke ku ànd ak ñoom rek yaa ngi si biir mun naa fiq ak naxante ak tappale loolu mooy dëgg hmm? dëgg dafa ñëw te it ñaari dëgg mënuñoo am si benn penc sooy bu walte lu hmm? xet ah, non alquran la xam nga xam nga màkka xam nga màkka nee woon naa la lu bëri woon ay xërëm la ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam di leen oo si boom ak dëgg ki di ak yàlla dañ ne ñun am na ñetti téeméeri yàlla ak juróom benn fukk suñu aaju mënta sox ñu fi nekkoon yépp seen bopp si lañ nekkoon ak naxandek jàppale sëñ bi sooy bu képp koo xam ne Sénégal moo la moo la tax a jóg dëgg la tax a jóg lu baax la dëgg jëm yi ngay ànd ak mhm. waaye képp ku leen wan ginnaaw rek dëgg taxu laa jóg ak ku mën a doon mën maa ko wax li ma si góobee naa ko gar mhm. sooy bu palte dafa am secret yoo xam ne mag ñi dañ koy jëfandikoo mhm. muy ànd ak bopp fas muy ànd ak meewu fas saafara bi nga di ko raxasee bopp fas ndax fas dafa am solo xaw ma nag fa fasu APR bi moom dee na te dootu dundati. man ah, na yàlla alak leen sooy bu léegi léegi amuñu fi léegi waaw xam nga xam nga waaye makee nga xam nga xam nga xam nga Moussa mm-hmm. ab yonantu la eh. tax it pouvoir si moom la yem boo ko yàlla yónnee mu war a jàkkaarloog na dana ko xooluloo xaw lan la yi nan nouvelle sa kàddu ndax mbuur nguur yàlla moo ko may doole mm-hmm. Ah, nalmunuka isa mm-hmm. daqaloo xariyatan afsaduha juróom-ñetti fukki ba kan ak nangam rey nga ko si réew mi te mujjut fenn mm-hmm. danañ la ko topp ëllëg sooy bu gàllaaj gi képp koo ko jëfandikoo boole ko laxabu fas yow muy def campagne wala yow mu bëgg falu wala nga yóotu benn mbir di ko raxasee sa bopp bi doo ko sangoo insha allahu taala nu bopp di yëkkati ko si kaw jëmm mm-hmm. noonu la lay yàq yàlla yëkkatee si biir askan loo yootu da nga ko jot loo xëccoo da ko jël amul benn werante sooy bu xam-xam dafa man lu ne xam-xam bi ne ñu ngi koy liggéey si xulillahuma malikal mulk tuuti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal xayr innaka ala kulli shay'in qadir nga boole ko meew fas ak laxab ak fas wala laxabu mbaam di ko raxasee sa bopp bi lépp looy xëccoo pour yàlla fal la rek incha allahu taala na nga si da nga si jot si anam bu sedd guy amul benn werante lii mooy. te defaral si Amadou Ba ak parti Limidias. déedéet yàlla ñu si yàlla musal. ah tedd ah, liste yooyu. <laughs> yàlla nañu yàlla musal xam nga sooy bu ah. ñun bu ñu yàlla bëgg a génne si lëndam dugal ñu si leer ñu bëgg ñaanaat yàlla tàbbiwaat si lëndam musiba dal ñu. Euh, te incha allah ah, waaw. allah eh, yoxrujul xayya minal mayti yoxrujul mayta minal ñun dañoo nekkoon si ak néew génn nañ ci néew gën a yàlla dekkal ñu nag wax dëgg yàlla bu ñu naan ak dugg si bàmmeel nañ fi nekk ba si kanam loolu mooy dëgg <laughs> waaw jërëjëf <laughs> am na solo sëriñ Abdou Aziz Diaw ay numéro téléphone am mm. ak mm-hmm. mm-hmm. mooy faral di wax ni moom li muy wex wex wex a wex baarakallah ñaan rek <laughs> ñëw moom ginnaaw yàlla buy am YouTube si yéen la ma sa xamee téléphone whatsapp bu heure bu jotee rek mën a jàppal ma sama ñaari doom yi la yàlla xam na ko ku leen di bàyyi xel la amul ci caméra nee la affaire télé sax moom daaw koy seetaan waaye léegi piqué ngeen ko ko ndeysaan dëgg yàlla ñu ngi koy nuyu bu baax a baax jërëjëf <laughs> am na solo suñ ñëwee fekk fa suñ xel dafay gën a dal ndeysaan jërëjëf euh, maman mm-hmm. xaw naa faa gëj nag waaye waaw loolu farata la jot bi ak temps bi yéen moomu leen moomutu leen seen waaw moom gëj naa fa waaw Assane lu xew léegi. léegi Sénégal la soxla Sénégal la soxla ñun ñëpp nañ focus rek waaw jërëjëf loolu solo nangu nañ gàtt ñaan moom gën nañ fa waaye nag ñi tëdd ba xaaju guddi mm-hmm. buy def yooyu da lay wan ni la maa ngi leen ciy boole naa jékki-jékki rek daaw dem ñëwaat waaye gëj naa fa waaw waaw ah, yi ma fa romb daa guddi woon ah, a ma jàll léegi léegi Sénégal leen soxla biig romb naa si di ngeen nekk farata la biig doo santé rew leen si rek am na solo incha allah euh, golo de mm-hmm. bari lay lay ak gu jigéen gi arab di ko wax xirdun. gu mm-hmm. jigéen gi macha allah. gu ah? jigéen gi mooy cëpp cëpp. loolu si cëpp cëpp. gii nga soxla wala dafa ñaari façon. waaw gii gu jigéen gi la. Euh, da nekk xam nga sooy bu. waaw. nit nekkoon na nit. waaw nekk doomu aadama. yàlla alag ko soppi ko lii. Hmm. ah waaw léegoo léeg bu njëkk ba nga ne jigéen ñu nekk xale. danga nga naan golo nit la woon. dafa laaboo meewu nag. ñu soppi ko. yàlla soppi ko dafa laaboo ñu soppi ko loolu xale yi dañ ko daan léebi fekk hmm. Euh, dafa am ñoo xamante ni ay nit lañu woon mm-hmm. euh, jàmmaarloog seen borom ngir féeteerlu mm-hmm. ne yàlla mm-hmm. liggéey na ba euh, aset mu feetu ko ba ajju mu feetu ñun dañuy feet yàlla ne leen jël leen ajju mu nekk seen feet ñu ne ko mukk ñun soxla soxlawun ajjuma aset la ñuy feetu ndax asset nga noppaloo ah yàlla ne leen da ngeen may toppandoo léegi aset gi tere naa leen ko bu si kenn liggéey bu si kenn napp jën bu aset jotee samedi jot ñu xiif duñ am jën am ñu si muus ñoo xam ne dañ daan jël jën yi bu asetee dañuy ñëw ba seen biir dëkk bi du dugg seen biir néegi ngir bëri waaye duñ ci ñemee jàpp mhm. am ñoo xam ne dañuy gas ay pax bu jë bu samdee jën yi bu ñëwee bàyyi euh, dàbbi si pax mi bu demaasee jën yi bu ñu ñoom yi fa jën yi fa des dañuy jàpp lekk ko mhm. yàlla nag ne leen kuunu xire datan xaasiriin ay nit la ñoon yàlla soppi leen golo toroxal leen mhm. image am dafa xaw nuroog image doomu aadama li ma si bëgg a jàngale du loolu li ma si bëgg a jàngale dafa am yoon yoo xamante ni dafa gaaw pour yëkkati nitoomu doomu aadama maanaam du golo ni nit amee ay xeet da nga gis ñu ne ñii pël lañ ñii séeréer lañ ñii joolaa lañ ñii lawbel ñii nangam gole noonu amee da am golo goo xam dañ naan la patapaare la tudd am ñoo xam dañ naan la kooñe la tudd am ñoo xam dañ naan la baabuñ la tudd am na ñoo xam dañ naan la dàngil la tudd comme nit ñi amee xeet rek noonu lañ amee si xeeti golo yi noonu lañ bëree dafa am xeeti golo yoo xam ne nag si kaaraange rek lay dox lu mel ni kooña golo yooyu mag ñi dañ ciy liggéey seen bopp yu loo xam ne bopp kooña lañ koy jël samp ko takk ko sa buntu kër wala nga takk ko sa biir kër yàqkat du fa dugg kër ga day gaa kër ga dafa am sécurité maanaam boo amul garde ñu gardien sax jërut ngay am gardien ndax yàlla dana defal tawfiix mu am golo yoo xam ne dañ laa ne patapaare boo bëgg yàlla day yëkkati say mbir golo yooyu mooy patapaare dañuy naaw si garab dal si kaw garab bu ñu jógee fii rek dañuy cëppit dal sa kaw garab gee golo yooyu dafa saaru patapaare yooyu mag ñi dafa am yoon bu gaaw buñ ciy jëfalal nit pour yàlla may ko alal mm-hmm. mu am saaru golo yoo xamante ne dinaan naa dàngil dàngil maanaam boo bëggee xëccoo lu diis maanaam poste bu diis boo xam ne da nga koy xëccoog ay nit am na secret bu si mag ñi boole ak toogu dàngin moom foo gisee boo toogee nag dafa am luy nekk si ginnaaw ko mel ni ñaari toogukaay njëkkikaay dàngil yooyu mag ñi dañ ciy def loo xamante ni lépp looy xëccoo siis boo bëgg a toog rek da nga fay toog sooy bu golo lu bari njëriñ la mm-hmm. am na yoon boo xamante ni dañ secret bu tudd xam suuna xaaf am na yoon bi si mag ñi liggéey téeméeri xam suuna xaaf nga boole ko benn genre bopp golo waaye dama wax genre bopp golo lay tudd mm-hmm. sooy bu képp ku koy sangoo yàlla may la alal mm-hmm. képp ku koy sangoo loo yotu da si jot képp ko koy sangoo foo nekk ren bu déwénee da nga nekk fu ko gën a kawe. Mhm. maanaam boo nekkoon euh, si misaal di xëccoo maire jot ko boo léegi assemblée nga jëm. Mhm. boo nekk assemblée jot ko boo léegi feneen nga jëm maanaam fi nga nekkoon heure booy xëccoo fi nga nekkoon ren da ngay jëm fu ko gën a kawe. waaye doo dellu bu dee a mooy ban sooy bu garo dafa bëri dafa bëri façon nee naa la nit ñi. Oh. Euh, bii de am am na ku may nuru. am na zaaru golo golo golo yoo xamante ni. am na zaaru golo yoo xamante ni maanaam bu leen xaj dàqee ba war koo jàpp ñoom dañuy taanu rek jox ginnaaw tànke lañu yëkkati si kaw bu xaj bi ñëw dañ koy xotti maanaam golo lépp lu nit soxla si dund si kaaraange mi ngi si golo si xëcc mi ngi si golo si not nit mi ngi si golo si yokk mbooloo mi bu dee affaire mbooloo la moom mm-hmm. golo amu si mbooloo amu si morom mm-hmm. alquran nee na wa azdin fi nnaasi bil hajji atuuka rijaalan wa ala kulli damirin yatiina min kulli fajjin xamiq mm-hmm. am na secret bu si mag ñi liggéey nga sox ko si làmmiñu golo mm. takk ko sa buntu kër ak petaaw mm. foo toll sa kër day riit macha allah amul benn wenante du génn mën a lu ah kër ga du génn déedéet day am mbooloo foo toll bu dee day ngay musique mm. da ko takk sa kër sa kër du day wéet bu dee sëriñ nga bëgg ay taalibe sa kër du wéet foo toll rek insha allahu taala mbooloo mi dañ lay wuy si lépp nag alquran nga koy jëfandikoo pour yàlla defal la tawfiix bu dee koo xamante ni da ngay xëccoo benn mbir mm-hmm. boo xam ne yaa ngi koy xëccoog ay nit mm-hmm. loxo golo bu ndey jor mm-hmm. waxuma tànk bi tànk mooy tànk waaye loxo bi mooy lu muy yóotoo ni dagg loxo golo bu ndeyjoor am na secret bu si mag ñi liggéey sooy bu képp ku ko jël def ko sa suufur lal looy xëccoo da nga si teg sa loxo amul benn werante moo tax gala euh, lu yàlla alag la nit la woon yàlla alag ko soppi ko soppi leen toroxalee ko aw aw xeet mhm. moo tax képp ku si jëfandikoo moo tax mook nit ñi mënuñoo taqali ko mhm. moo tax da nga gis yoo xam ne dañuy yar golo bii mooy ban euh, bii nag xaw ma golo gi nu mu tudd nee naa la dafa bëri ay xeet dafa am dàngin mhm. am kooña am am zaaru golo yu bëri xeet la am na golo yoo xam ne golo simple la. ji moom day toog ah, ah, hmm. ah, bi lii lii. loo bind la lii day toog laa di toog nii nii am na secret yoo xamante ni foo nekk fa nga nekk nga bëgg kenn mënu la faa déjjati. Hmm. da nga koy boole toogu golo. nga liggéey ko secret bi son bi waxu naa naquudu expliqué léegi naan la am na yoo xam ne dañuy hmm. am na secret bu si mag ñi ne fi nga yëkkati toog kenn mënu la faa jëlee da nga fay sax ba bis penc waaye nit mënu faa yëkkatee moo tax son bu kilifa diine yi dañoo fonk lii trop mhm, dafa bëri lu ñu koy utiliser di ko jëfandikoo ak moom pour yàlla defal la tawfiix mhm. moo tax lu bëri xeet la nanaa la nuppal amee olof am joola am golo yu noonu la amee moo tax aw aw nit nekkoon nañ tooñ yàlla yàlla soppi leen toppi leen jëlee leen si anamu doomu aadama yóbbu leen si anamu golo kunu xiradatan xaasire na noonu la leen yàlla mbugalee moo tax son bu secret bi képp ku ko jëfandikoo si golo li nga bëgg yàlla defal la tawfiix moo tax képp ko xam secret golo da am kaaraange képp am na sax yoon boo xam ne mag ñi dañ koy liggéey si secret golo pour gudd fan ñu ngi koy boolante yaa ayyuhal lazina aamanu ne bokk na si garab yu gën a si doomu bi am na secret bu si mag ñi liggéey nga di ko sangoo si kaw garabu daqaar yàlla dalay may fan amul benn werante moo tax mag ñi euh, dañoo fonkoon secret golo daal moo tax képp ku bëgg sa kër du tas utal lu bokk si golo nga def ko sa biir kër incha allah kër gu du tax ko dàqe ba war koo jàpp du gi mu am yërmande ko mukk bu tàqalee ko ci garab sax te du bàyyi doom ji moo tax bu tàqalee doom ji rek na wala deew doomum tax képp koo ko jëfandikoo yàlla defal la tawfiix soo bu lii nag dama amoon xaj yoo xam ne tey dañ ko daan jàpp bu baax hmm. moom golo hmm. moo tax bëri na si yoo xam ne xam nañ ko si xeeti golo yi ñu ngi ko xamee woon sa daara ja tay ba mbayen tabaarakallaa am na solo hmm. kon mi ngi noonu asan naa ne kon nañu rek daal di yëkkati yëf yi xam naa ci dolli rek mooy lépp lu ngeen bëgg ci euh, ko ci numéro téléphone yooyu maanaam nga bëgg mu seetal la jaaro yi mu doon wax itamit ma nga fa waaye jaaroom nag du jaaro yi mu jël rek teg ko fa jërëjëf jërëjëf jaaro bi ci boppam mhm. gis ngeen saa jaaro bi macha allah jaaro bi mhm. sa jaaro lay doon mhm. boo ko joxee Assane Mesere bu ko takkee du nekk amul bi am na li ñuy wax lavage ci set moo la moo xam lu a 571 87 63 wala 78 469 92 92 sëriñ bi lay tàggu. waaw kontaan si sénégalais yi di leen ñaanal yàlla defal la tawfiix. Mm-hmm. campagne yi nañ si demee dal. ak mm-hmm. yar ak euh, dignité. Mm-hmm. ak fonk seen réew. sàcc yi nag ñu fexe weer leen ñoom ñëpp. ndax sàcc dafa jafee weer. dëgg la yonent yàlla Souleymane. dafa amoon benn sàcc boo xam ne dafa sondaloon benn maire chaque jour muy sàcc tool bi. Souleymane ne yebal ay nit ne leen dama bëgg ngeen jàppal ma sàcc bi. ñu góorgóorlu ba sonn ndax sàcc boo xam ne boo yuuxoo mu yuuxu ànd ak moom ànd ak yow dafa xaw a jafe mm-hmm. moo tax ñi euh, ñi may gaaruwaale rek mooy ñu àcc sàcc alalu sénégalais nañ ci ay ay ay loo xam ne xel mënu koo tudd ñu koy askane benn nit moo ko moom wala cent milliards wala cent loolu dafa jëkk de ci koo xam ne defoo dara amoo benn poste boo xam ne dañu la fal si réew mi amoo amoo lu mat juróomi at si réew mi bëgg tëdd si ay milliards Souleymane ni leen dem leen incha allah ajjuma bii di ñëw dana jàpp sàcc bi ba ñëpp ne bu kenn manqué ne ñëpp julli sa jumaa mooy góor jigéen mag ak ndaw man mhm. julli sa jumaa mu ne lu ngeen bëgg a xam ñu ne sàcc bi mu ne yow moom sa loxo bi taq taq bopp ginaar bi bopp ganaar bi nekk sa bopp bi yaa sàcc sàcc meer bi waa jël loxo bi teg ko si kaw bopp bi foog ne moom la ndax sàcc dafa xaw a yomb tiit ñu doo fekk ko fa jàpp ko moo tax képp ko sàcc alalu Sénégal na nga ko delloo wala bis dañëw journaliste dañ la teg hmm. nga jàkkaarloo askan wi yal na yàlla defal ñu sutura ak tawfiq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu amiin waaleykum salaam baay waa sant ñëpp de gërëm leen hmm. Hmm. kon mi ngi noonu sant nañ leen bu baax gërëm leen am mbégte ci yéen itamit suba bu àndee ak dogalu borom bi ci samedi ji bu 11h jotee ñi ngi war a dalal oustaz Mbacke Sylla. macha bu Sud FM la ñu bëgg a dalal. li a am oustaz mm-hmm. ah, ci xeetu fu mu jaar. Mm-hmm. lan la doon liggéeyee lan def ak ci tolluwaayu réew mi. Mm-hmm. lépp rek ci lañ ci ndax ci ngeen bokk moom duñu bàyyi dund nit ki. di nga xam yow miy sitaat nit ki fan la jaar ba agsi fii. waaye itamit nga xam gis-gisam ak taxawaayam ci tolluwaayu réew mi. asalaamaaleykum Fall Gumbala ak El Hadj Modou Diouf mi leen jiite asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.